بيب جلد وخمني بغن الواخ سرين بدي وخني ولا تسي ظنك بالله الجميل إذ الجميل لا يراسي والجميل نينا بول نياول سن جورت سن بروم سبحانه وتعالى ناخ سن بروم بوكو نتي اي تورام موي الجميل موي كو رافت تي غيناو كو لا امو دارا لودو رافت فكل من رايت تستبطا جزاء ربه فدور ياي نينا كيب كو خامني يانكو غيس مو mu naan maanaam suñ boroom kat ak fayam dafa yéex ci man ay xéewalam dafa yéex ci man nee na képp koo xam ne gis nga muy def loolu nee na nga xam ne kooku dee jikkoy ngistal moo nekk ci moom léegi nag mu mel na danga koo laaj lan mooy jikkoy yan mooy mandarga yi nga xam ne képp koo xam nekk na ci moom mën naa jàpp ne kuy ngistal la sëriñ bi tudd ko ci di ñëw mu ne amma alaamatu riyaayi fa ata bi addiha baadu suyuuxi musbita nee na mandarga yi ngistal day yenn ci sëriñ yu baax yi tudd nañ ko te yii di ñëw ni ci la bokk awaluha alkasalu ma taqlili saayin la dal waxdatu yaa xalili nee bu njëkk bi mooy nit ki day yëg ci boppam ak tayyeel bu fekkee ne dafay nekk fu wéet ci mooy ci topp yàlla bu nekkee daal ci ay topp yàlla waaye dafa wéet day yëg ci boppam ak tayyeel nga xam ne tayyeel googu xaj na bu nekkoon ci mbooloo du ko du du ko dal kon loolu day wane nekkoon moom am na jikko bu nekk ci moom yi jikkoy ngistal wa thani taksirun maa nachaati fi saai fi saai bayna annaasi wal ifraati ñaareel bi mooy mooy contraire bi mu waxoon mooy nit ki di bëri lu mu topp yàlla bu fekkee dafa nekk ci diggante nit ñi bu nekkee daal ci kanamu nit ñi dana sawar loolu ci lu baax waaye bu wéetee daal day mel ne day tàyyel ay cëram day tàyyel ci lu baax loolu jikkoy kuy ngistal moo koy def taalisuha zaydun li ajli lmadxi fi amalin wa naqsuhu lil qadx bokk na ci màndargay ngistal ba léegi nit ki di dolli ay ay topp yàllaam di dolli lu baaxam ngir leen rek ngir nit ñi taggu ko wala sax muy wàññi ay jaamu yàllaam ngir ne dañ koy ŋàññ ñaari buñ ci mën nekk rek du lo xamne lu bax la jikkoy ki ngistal mo koy def moy nit ki bu fekkee ne daal mi ngi doli ay yalla am di doli lu baaxam ngir ben objectif rek moy nit ñi diko tag wala sax muy wañi ay jaamu yalla ngir nit ñi dañ koy xoli ben bët lool lu ci mëna doon rek day day bok ci jikko yi ñi nga xamne dañu gistal moo bi tek ci ben béy bu am solo ne wala tasit saayaka lil madhi wala tanqushu lil dammi walaw min al mala nee na bul dolli say jëf say topp yàlla bu ko dolli ngir tag guñ lay tagg waaye itam bu ko ŋàññ bu ko bu doo wàññi ngir ŋàññ guñ lay ŋàññ ak donte ñëpp dañoo daje dajaloo di la ŋàññ nee na bum tax ngay wàññi say jëf ndax kat fala tadurruka al madhimmatu wala yanfauka al madhu ladayhim faaqila nee na nit ki ay ŋàññ yoo xam ne jóge ci aw nit jëm ci yow neen lool du la lor benn yoon du la gaañ benn yoon naka ay tagg yo xamne nit ñi lañ la koy def batay tey du la jariñ ben yoon fa sa borom subhanahu wa taala motax mu ne wala yasurruka siwa ridwani wala yasuuka siwa al asiyaani nit ki dal julil bi li wara gëreem lo gërëm loo li ko war a kontaan loo borom subhanahu wa taala waaye li wara naqari moy moy yàlla subhanahu wa taala kon nak nit ki fofu la wara taxaw mu julil bi fa in turdi irfaana qadrika lada rabbika fanzur fi alladi min kabada mune ne bu ba nga xam ban daraja nga am fa suñu borom subhanahu wa taala neena fi koy natt rek moy nga xol li nga xamne moy jugi ci yow bu fekkee min taatin motax mune min taatin aw aksiha fa in takul mardiyahu fa anta du qadrin fatin neena nga xol li jugi ci yow bu fekkee mo xam top la wala safanu top la muy moy yàlla bu fekkee ne nag liy jóge ci yow gërëm no na suñu borom subhanahu wa taala jàppal ne am nga jàppal ne am nga ben daraja mu màgg a màgg fa suñu borom subhanahu wa taala ولتعلم بأن قدرك عظيم عند الإله ومقامك كريم نغا خمنه ام قدر جمك في سنبر سبحانه وتعالى تيل سمقام مقام متدل مكويل في سنبر سبحانه وتعالى أما إذا كان إقامتك في من هي جل فخسران يفي لأن قدرك حقير وذميم وأن سعيك دني ووخيم بفكي أنك نغا يو ci ay mooy yàlla rek ngay nekk ci lu naqari yàlla suñu suñ borom subhanahu wa taala rek nga nekk jàppal ne kon yow sa daraja fa sa yàlla fa yàlla mooy daraja ju suufe la daraja ju ñàkk solo la te say jëf naka noonu jëf yu yu suufe la yoo xam ne amul benn solo kon nag li la war yow boo gisee lii ci yow mooy fatub ilayhi ajilan min dambika al mujib rada wa kas kasbika boo gisee loolu ci yow mooy boo gisee ne yow kat fi nga sawar dëggantaan mooy mooy yàlla ne na ci bakkar boobu nga nek bakkar yi nga xamne bo ci nekke fum la yóbbu rek moy alkande wa baadiran li maa yuaddil ajra way juzul wa yonil qadra bu ko defé nag nga gaaw ci lépp lo xamne day xëcc jamele ci tuyaaba ci lo xamne dana reeyal ëlëk sak fay dana kawel sa daraja fi suñu borom subhanahu wa taala wa huwa alladi yarda bihi aljalil min amalin jaa jaa bihi rasul te loolu nag li may li nga xam ne moo lay may say dara ji di yokk sa dara ji di kawe li la koy may dëggantaan mooy lépp loo xam ne suñu borom digle na ko wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko loolu rek ci nga mën a nekk ba sa dara ji di kawe sa fay di gën a màgg suñu borom subhanahu wa taala kon muy dénkaane bu am solo boo xam ne sëriñ bi ñu ngi koy dénk jullit ñëpp kon mën nañ koy foofu incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu